ci wàllum luubal xaalis ci mbir yooyu sax euh, nga xamante ni mi ngi remonté ci euh, jëwriñ ji ñu dénk wàllu microfinance ak économie sociale ak euh, solidaire Alioune Dione ci ay jamonoom ñu defoon benn audit interne loole nag daal di andi benn trou boo xamante ne 30 millions la de francs CFA ci direction wu ki nga xamante ni moo di Diégui Diop madame Fall Euh, tey ñu daal di koy téye nga jàpp ni euh, loolu dafa nekk ba léegi nii ci euh, liñ koy waxee ñoom chasse aux sorcières surtout nag ci jamono ji nga xamante ni ñu ngi waaj élection. soxna Jaara gis nga réew mi dafa am ñu ngi ko dénkoon de 2012 à 2024 ñooñu jóge fi am ñu bees ñu fi nekk te yaakaar naa ni kër sax boo ciy dëkk balaa ngay dugg di nga def ce qu'on appelle état des lieux bi ñu faloog léegi nekk nañ ci yaakaar naa rapport préliminaire yi sax génn na ay scandale scandale tudd nañ ko fi fi mu toll nii bu ñu doon lim scandale yi sax fii ba suba duñ fi jógee li am ci kaaw Jéggi Jóob mooy dafa nekkoon ci benn direction mu nekk mu gérer ce qu'on appelle économie sociale et solidaire promotion de l'économie sociale de l'économie sociale et solidaire ministre ñu tabb ko mu ñëw def benn audit interne gis ni niñ doon gérer fonds yi de am na trente millions yoo xamante ne trente et trente ak lu teg yoo xamante ne ah ba fi may waxee ak askan wi nii kenn xamul fan la dugg ñu yoon la ki nga xamante ne moom la ñu dénkoon loolu ñu woo ko laaj ko pour mu indi ay firnde wax ñu exactement trente millions yooyu noonu fan la dugg peut-être mën na nekk euh, omission wala mu nekk erreur boo xamante ne ci ni ñu doon gérer comptabilité bi la donc moom mi nga xamante ne mooy ndeyu mbilli ji moo war a ñëw indi ay éléments de réponse pour wax ni lii ak lii ak lii ak lii moo waral ngeen gis ni trente millions yi nii fii la dugg. cela ne veut pas dire que luubal na ko. bon jusque là dafa am lu ñu tuddee présomption d'innocence parce que ba léegi nii présumé détournement la ñuy wax. mais nag bu ñu demee ba yoon topp ko. indiwul ay firnde guy wane ni trente millions yi noonu ñu koy toppee. fii la dugg dañuy jàpp ni du fa luubal ba keroog muy setal deram. d'accord ci est-ce que loolu tamit euh, ci garde à vue bi euh, yoon loo xamante ni da ko waroon doxal rek yoon la. ñu man xam nga fii du ma fi toog di weddi sama bopp. Mm-hmm. lan laay wax ci plateau bi chaque jour. képp koo xam ne ñun dañ la joxoon suñu alal. nga yore ko ci réew mi ngay ministre wala ngay DG. lépp loo xam ne yore woon ko buñ ko jàngatee ba nga jël ci benn dërëmu Sénégal delloo ko ci kees yi parce que ñun bi ñuy fal suñu ministre yi DG fal ñu leen pour ñu sàcc. Mm-hmm. Jigi Jóob nag ja woo nañ ko topp nañ ko procédure bi yàgg na su fekkee Jigi Jóob dafa yore woon ñun li ñu yore woon ci état bu ñu demee ba ñu ba ñuy topp comme lañ defoon Cheikh Oumar Anne ñoom dañuy topp Cheikh Oumar Anne woon Cheikh Oumar dafa sàcc 500 milliards mais rapport bi épinglé Cheikh Oumar Anne 27 millions moo ci nekk yu war a justifié ay lamb yu mu organisé université ak ay match de football. ak ay kilo ak ay kilo waaw da ngay yooyu yooyu. Ah, ndax ndax Cheikh Oumar Anne bi muy nekk. kilo ñebe 4000 directeur yooyu yooyu xam nga man xam nga bi ma la bi ma la déggee nga wax sànq dama laa jàppee koo xam ne bokkoo ci waa Pastef yi nga xam ne da ngeen di def populisme politique dama ne de université to togg gi ndax seex ndax directeur mooy togg wala dafa am société buy gagné appel doo fa togg comment il fekk nga nekk un directeur général kenn ko gagné appel doo fa togg université. yow ne la ñëw ne la kilo ñëw ne la kilo ñebe 4000 laa koy jëndee ne rapport bi ñu koy pengalee ba léegi kilo ñebe newu ci match ay match tournoi de football. ak ay làmb yu mu organisé woon ci université yi yooyu lañ ko ne am na ay 27 millions yoo xam ne wax hmm. xamuñu fan la dugg comme ni koy toppee ci Jigi Diop bi ñu ko toppee jël ne avocat juriste la borom xam-xam la mu ngi topp doon nañu réduire di réduire di réduire di wàcc commencé woon nañ 30 millions ñëw nañ ba 25 millions ñëw nañ ba 24 millions dem nañ <laughs> ba mu egg ak ñoom ci 400000. moom Diégui Diop moom Diégui Diop waaw dem ci 400000 man démb fa laa yendu tey bi ñu paree ba génnee jigi laay doog a génne waat foofu bi ma bi may bi ma émission bi tey lañ ko programmé man programmé ko woon. bi ma Cheikh di woo maa ngi tribunal man maa ngi tribunal parce que man procédure bi dama ko topp démb maa nga fa laa yendu bañ génnee Sow laay doog a dem parce que dama amoon ay réunion politique mais damay am ay réunion politique mais jàpp naa reddition de compte bu amee bu ma doon doon que Diégui Diop dafa am confrontation ak nu le euh, tëkk ko ne ko dinaa la topp ci nangam ak nangam règlement de moom ministre tutelle bi nga xam moo remplacé direction bi nga xam ne moo ko yore woon. léegi nag ñun dañ ne ko toppam jeex parce que Diégui gentleman la. jigéen la ndaanaan la biñ ne dañ koy recherché. dafa génn def vidéo ne maa ngi nii xaawal ñu jëli ko mu dem uyu ji ñu convoqué ko mu nekk fa dignement moom mooy dalal nit ji ñu ne nag ñun dañu wax ne reddition de compte bu mu nekk règlement de compte nañ ko teg ci yoon dañoo jiñoon ay sàcc ne Alioune Sall dafa sàcc 6000 milliards Mansour Faye 1500 milliards ne Macky Sall dafa jël ay pipeline dugal ko ci biir géej gi di sàcc pétrole bi di ko yóbbu bitim réew bërki démb la waa Pastef fen ba fii ci plateau bi benn Pastefien moo toog fay di défendre Ousmane Sonko ba la waa rédaction d'accord ça veut dama ne li ngeen doon wax Ousmane Sonko 9 ans yi li mu doon wax daw du ci dëgg même bi ngeen gouverner li ngeen di waxaat daw du ci dëgg. nga mhm. xamante dunduk sénégalais gi ngeen war a jéem a xool noo leen koy saafara woo sénégalais ci coono bi nekk ak jafe-jafe yi ku ne ci biir réew mi xam nga ne réew mi metti na. Mhm. nit ñi euh, jafe-jafe yi ne ci biir Sénégal xam na. yi muy ñëw di wax ni ay réduction de compte d'accord na mais yéen li urgence bi ngeen ñëwee fii di wax affaire wu euh, sànq yaa ngi tudd fi affaire wu euh, ACTT bi ñu ñëwee lan lañ fekk bi ñëwee dañu fekk Abdoulaye Wade yor appel téléphone de 22 milliards l'État du Sénégal doon utiliser appel téléphone ñu réduire ko ñun à 3 milliards. Euh, fekk euh, fekk ni débat bi bu ko naree topp moom ci li mu bëgg li nga bu naree topp débat bi ci moom li mu bëgg. waxal sénégalais yi du ñu wax sénégalais yi lu am naan du waxal waa Pastef parce que xam nga lu tax da naan du waxal waa Pastef da ngay téye ba sa tax na parole ñëw ci mooy appel téléphonique de l'État dañ ko fekk 22 yóbbu ko 3 milliards. achat de véhicule ñu jëlee ko 31 milliards. yo yóbbu ko logement logement de nga yi ngay wax nii. xam nga yi ngay man li may am lépp ay sources yu wóor la. donc Ousmane Sonko du ko weddi Diomaye du ko weddi Euh, Dominique par rapport man ci état ñun ci état lañ jógee di leen opposé. d'accord bi nga xamante ni Ousmane Sonko taxaw na wax ko ni moom lañ fi fekk dafa mel ni euh, li nga xamante ni gannaaw euh, jëwriñ ji ñu dénk wàllum énergie bi mu génnee di addu par rapport ak moom li mu fekk ci secteur am tey ñu gis ki nga xamante ni moo di directeur général bu Dakar Dem Dikk. Mhm. moom tam génn di expliquer. juuj jaaj yi mu mm-hmm. nga xamante ne comme ni mu ko waxee la fa fekk ak ay euh, trou euh, yoo xamante ni gis na ko mais loolu dafay dafay dafay dafay wéy di di dugal syndicalisme booy bul wax docteur bi ak ñeent maa ngi ñëw boole syndicalisme question bi boole syndicalisme non non di nga sama question nag man maa ngi xool nan laa koy posé ma su ma koy posé tamit dinaa si ñëw voilà

grave demal. par rapport ak li nga xamante ne mooy état de l' économie bi Ablaye bàyyi ñu ko bu yàq débat bi nag. dàqu ma ko. xam nga xam nga li ma la wax farloo Pastef gi da ngeen ko fi bàyyi. ñetti question yi na mat. <laughs> waaw Ablaye syndicaliste yi nee nañ ministre bi waxul dëgg day fen booleel ko ko ci. Ablaye. mu tontu ñett yëpp. waaw d' accord fii je crois fii kenn par farloo fi te xam naa ne yàgg nga ma gis may def ay débat e je sais que war ngaa xam ne je suis très objectif et que bu may poser sama question wala dama koy poser ñetti nit ñoo man dinaa xam nan laa koy poser voilà mais les questions que je pose c'est moi ah. qui les pose ah, d'accord alors Abdou euh, euh, Dominique Adjaara nga baal ma rek euh, Abdoulaye bu dul dara sa rakk laa dañ fee toog dañ fee encore dañ fee toog répondre répondre votre question da bi. dañ fee toog man wax sénégalais loo xamante ne da di amal. non yéen waa Pastef fi te doon wax loo xamante ne dañ fiy nekk di jëm yëkkati ay kàddu yu ñaaw ak yi ni mel Ablaye syndicaliste bi da li ñu wax du dëgg. Ablaye après bu na répondre mais di am sa temps de parole di nga am sa temps ba léegi nag ñoo ngi lay a dalal mais dafa mel ni yow looloo la arrangé parce que lan la tu n'es pas tu en fait nga toog te amoo argument. Hmm. moo tax boobu ba léegi ci ay xiiroo euh, ñaayoo nga bëgg a yóbbu.